yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi jërë ngeen jëf mbokki fu ñu mën nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen nuyoo fii ci grande mosquée de Touba nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma mu fi amee taxawaayu am solo ci waxtu ne saasu ne rawatina nag ci weeru sell yi nga xam ci lañ nekk ni weeru koor bi di fi di ko dundal ci ay waxtaan yu am solo yoo xamante ni wàllu xam-xam la ci itam yi fasanti ko waaye itam buñ ci noppee ñu ñëw fii ci keppaar gi daal di fi bokk ak kuréel yi nga xam moom la faral di dalal ndogu tey jii nag daayira Taysirul Asir bu euh, ñi nga xam ñooy ingénieur bu Thiès ñoom lañ fi dalal tey euh, ñoom itam ñoom taxawaay bu am solo ci ci ci liggéeyu Serigne Touba ndax wàccuwaay weesuwul Serigne bi jox la ndigal nga yeesalaat barab boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom la tawat dab Euh, fa la ñuy nekk di ko defee suturloo boo amee taw feexoo dugal ci sa alal wala sa ñàq wala sa doole wala sa kattan wala ñu digal la ko loolu taw feexoo mënu ko weesu bu baax a baax ñëw nañ nag euh, sëñ Kebe bëgg a yëkkati kaddu ci li nga xam jot nañ ko gis ak relation bi nga xam ne am nañ ko ak daayira Muxaddamatul Xidma ak yëg-yëg bi ñu am ginnaaw bi ñu leen woowee ni ñëw leen ñu bokk liggéeyal Sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba sëñ bi bismillah salaamaaleykum auzu am min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin barke borom Tuuba waaw dellu sant yàlla rek di sant yàlla bu baax a baax a baax ci tawfeex gi ñu sëñ bi def boole si boppam boole si ñu ko war a liggéeyal te muy euh, yërmaande di tawfeex ak ndimbal euh, daare Muxaddamatul ma euh, kóllëre gi sëñ Muntaxa moo ko jox yaakaar naa ëpp na ñaari at te li ci jiitu bisu isbu tarxiya bi bokk ci bisu xasaay bi ak bisu alxuraan bi ak université bi Euh, muy kóllëre gu mag ñu koy sàmm di ko dox ba mu jur euh, tawféex ci biir tawféex muy liggéey bi biir bu tedd bi ñu jumaay jumaay Touba ñun ñëpp ñu xam ne Sëñ Touba wax ci tubaa li Sëñ Touba wax ci jumaa ji ak lépp li ci nekk ci njariñ nga xam ne nit mënu koo dabu rawatina mag ñu jiit woon euh, danañ koy dox di jiitoon nit ñi ba faw ndax lu jafe nekk lay doon ci génération yi di ñëw ñu am tawféex dabuwaat liggéey boobu liggéey ci ànd koog yéen comme ni nga ko waxee noonu muy kóllëre goo xam ne Sëñ Muntaxa moo ñu ñu ñaan mu dox ba àjjana fi daws ñun nag mbooloo mi nañu dellu yeesal rek yeesal sunu taalibe yeesal sunu jébbal euh, di ko dugal suñu bopp di ko dugal ñu sos daara bi avant ñu ñëw école di ci yéene waale sax ñi ñëw ëllëg nga xam ne ñun xëy na mën nañu fee fekk mën nañu fee bañ a fekk muy liggéey boo xam ne ñu ngi ñaan Serigne Touba nangul ñu ko ba àjjana fi daws kon nag di delloo yeesu jébbal di delloo yeesal sunu taalibe di wax sunu jàppandal euh, di déglu ndigal rek di déglu ndigal bu baax te ñaan saa yu ndigal ñëwee fekk ñu jekk loolu mag ñi daan wax ci wolof naan yàlla na suñu sëriñ Tuubaa defal jekku ndigal sax su ndigal jaxasoo ndigal ba ñu mën a génn ndigal yàlla na sëriñ Tuubaa defal ñu nekk daara boo xam ne nii fii ba àddunay tukki dana liggéey loo xam ne euh, dana bokk si liggéey yi ëpp solo yi sëñ bii gërëm loolu dong la ñuy ñaan xam-xam baa ngi fi pas-pas yaa ngi fi euh, yitte yaa ngi fi tey it njort na ne sëñ Tuubaa defal doolee poos ji yoo xam danañ ko mën a def kon nag yokk la ñuy ñaan di jekku ndigal li ba lu ñu jekku man ci ànd ak sëñ bi li sëñ bëgg si Touba ñu bokk ñu koy amal li sëñ bëgg si am si yoon bi ñu bokk ñu koy amal li sëñ bëgg sax si jullit ba ci àdduna gi yëpp ñu bokk ñu koy amal loolu mooy yitte ji kon nag di leen sant bu baax <laughs> di leen sant bu baax ci taw feex weeru koor gi ndax weeru koor yi day jagleb Serigne Touba ci biir jagle yi waaw kon nag ñu ànd ak yéen ci ndogu yi nga xam sëñ Saliou moo ko digle woon muy lu yàgg te gëm na ne day sax moo ko marché bu Chafi yi sëñ sëñ Muntaxa woote luy sax lay nekk lépp lu baax lu yees lu kawe luñ sos rek day sax kon nag buñ fekkee si ñi ko fekkee bokk ñu koy taxawal ci jotaay yu njëkk yi di ci ànd ak yéen ñaan mu sax ba taw feex googu la suñu borom defaroon saaba yi ci taxawal lislaam defal leen ko ci xare ba badar suñu borom defal ñu ko loolu rek mooy ñaan gi jërë ngeen sant bu baax a baax jërëjëf taw feex asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa euh, dolli sant rek sëñ Kebe yaakaar naa wax na lépp euh, ci ndégalu jëwriñ rek xanaa dañuy leeral ñi fi jot a teew mooy jëwriñ sëriñ Cheikh Mbay mi moom mooy jëwriñu daayira bi sëriñ ma paan me nag ma penda Kebe moom moo yor commission développement bu daayira bi sëriñ Mamadou Sène moom moo yore commission finance euh, sëriñ Adim Adama Diop moom tamit euh, nekk ci commission développement ba tey sëñ Abdou Lahad Jité ak man mi Modou Ndiaye euh, di secrétaire général waaw di leen sant bu baax a baax rek. kon salaamaaleykum wa rahmatullah kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci nabi bi sant xaadim rasul di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi te ànd di ko ñaanal mboolem kilifa ci yoon gi yëpp noo ngi ziare mboolem waa mu daayira Muxaddamatul Xidma seen taxawaay rafet na lool ni ko sànq jëwriñ ci waxee bi ñuy def visite bi rek daan ni yéen kenn mënu leen a fay ndax li ñëpp waroon a bokk di ko liggéey du ko saytu mooy jumaa ji yéen yéen ñu ci nekkal kon kenn amul seen fay kon ñu ñaanal leen sëñ bi nangu leen liggéey bi ca doole leen a kartan ba fa ngeen ko bëgg yóbbu ngeen yóbbu ko fa. ni ngi sant itam mboolem waa daayira Hizbut Tarqiyyah bépp seen taxawaay lii ab tàmbali rek jàpp naa ne ab tàmbali la rek la suñ mën taxaa noonu lool li ma weesu ci li ma dëgmal loolu moo nu daal fii luñ fi jëfit nañ xam ne daal am nañ yéene ay million am ci kanam yàlla na sëñ bi defal tawfeex na ñu mën ko yeggale di sant mbooloo mi fi teew ñëpp sëñ Moon Njaay lim na leen sëñ wax na itam réalisation yi nga xamante sëñ bi dem tawfeexal nañu ba réaliser ko kon ñuy xam ne daal ñoo ngi li ci suñ kanam yëpp daal ñoo ngi ci woon mbokk taalib yi nga xamante ci daayira lañ bokkoon moo xam ñi nga xam ne génn nañ sëñ ko ba wax ko ñu fasaare leen ci moo xam ñi nga xamante ñi ngi ñëw ëllëg ñu ñëw sos ci daayira bi jàpp ci liggéey bi ndax liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ci fu ñu ko yóbbit bokk ci liggéey sëñ Tuubaa rek mooy mooy mooy tax mooy taxawaayu daayira bi kon ñi ngi sant waa daayira Muxaddamatul bu baax baax a baax ci ci ci ci wëllëri ji nga xamante ni yéen a ngi koy jàpp saa su ne at mu jot bu koor gi ñëwee ngeen woon ñu fekk ci conférence bi thème bu am solo ñu fekk fi tey jii nii muy njàng rawatina ci jigéen mu nekk conférence thème boo xamante bu am la boo xamante ni bu ñu war a yaatal la kon ñoo ngi leen di ñaan ñaanal bu baax seen taxawaay suñ borom euh, gën leen kàttan doole leen tawfeexal bu baax baax ñoo ngi sant nag bu baax a baax di ñaan suñ borom nangu nu liggéey bi ñu yàgg koo fekke suñ borom nangul nu koor gi te defal nu ci tawfeex ak ngërëmal sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf yaa xayra dayfin ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi